kon chef de village yi ak délégué de quartier yi yéen itam amaan ngeen leneen ndigal lu bees ndax village bu ne ay délégué de yu bari dafa ne ci biiram am na ci yoo xam ne dangay gis benn quartier lu ëpp ñaar fukki délégué de quartier ni ci biir <coughs> délégué de yi kon ñoo gën a jege nit ñi kon ñoom village chef de bu ñëwati bu jugee fii lañ fi tënke bu demee àggale ko ci ñoom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 moo war a dagg si biir dëkk yi mbedd mi am na ñu dem ba tàmbali ko tabax. kon yàlla ko ba ba ñu ko yëgee. sëñ bi daal bi ñuy wax ma ko ca laa joxe ndigal ñu tere ko xam nga loolu yàq lu ñëpp bokk la cent vingt mètres bi suñ say yu xalaat yu rëy di ci amul moo tax bu def ko nit ñi saa su ndigal yàggee rek dañuy jàpp ne wëratu leen kon ñoom itam ñu ngi leen ci soññ waaye délégué de quartier yi dañ leen ci jàppale na futbal yu bari na ci dëkk bi.